ñoo ngi fi ci garage bi Bignona fekk fi ay clients ay garagiste ak i chauffeur ku ci nekk di fexe ana naka ngay duggee biir Casamance donte ni jafe-jafe yi ñuy jànkonteel bëri na lool. li ko waral mooy non seulement lu ñu délocaliser garage bi mais aussi contexte actuel contexte actuel mooy dañoo dëgg na état dafa arrêté bateau le ba doon yóbbu waa Casamance Sénégal dem dik supprimer ses voyages. dañuy daj ci yoon wi moo miti wusuma laa Gambie. police yi léegi xewal nañ loo xamante ni Gambie client bi soo mul quarante dañ koy wàcce ba pare ñëwaat ni chauffeur bi na ko remboursé waat te loolu du yoon. il faut nga dem fi mu njëkkoon nekk. ñu ne la non demal telle place demal telle place. dama laajte dem su la laajte ñu ne ma ñu fii moo tax ma ñëw fii. comme at bu jot. paas yi di yokku daal ci 7000 francs dem ba ci 10 000 jàpp. quinze mille francs. en temps normal euh, ñu ngi voyager à sept mille francs mais avec euh, bi client clients yi ni ñuy ñëwee ñii gars yi actuellement ils sont à dix mille. disent que dans deux jours ils vont monter jusqu'à douze kii bu jógee fi suba buy egg Casamance il rentre vide te li ñuy consommer fii aller loolu la ñuy consommer retour donc pour que ñëpp mën dem il faut que ñëpp ñiy dem au moins ñu mën a fay billet boo xam ne bu eggee mën a remplir en plein ñibbi si Dakar loolu mooy loolu ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci garage bi jiite ko di ñaax ci nguur gi ngir mu daal di leen may ñu mën di daw ci guddi gi. parfois ñu daw guddi moo leen gën a arrangé daw bëccëg c'est vrai qu'il y le contexte des accidents mais état bu génnee ay ñu ne arrêté 23 heures ñu ñëw arrêté bato bato la Joola dematul Sénégal dem di dematul ñu ne dañu jaaxle. nañu bàyyi guddi gi ñu daw tabaski bi nañu ko may yàggul benn temps de minute la. nañu ko may ñu koy daw zéro heure bi. fii ci garage bi Bignona ku ci nekk di fexe naka ngay demee. ngir amale tabaski bi ca Casamance. client yi di ñaawlu yokkute paas yi. chauffeur si ak borom oto yi moom li ñuy ñaan moo di nguur gi dimbali leen ngir ñu mën a yóbbu ñëpp.